internationale. abonné leen suñu chaîne YouTube ngir yu wér te ci réew euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. nga présenté wu rek suñu mbokku internet yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man maa ngi tudd El Hadj Oumar euh, dëkk Medina Baye Kaolack euh, di yëngatu ci média waaye itam nekk directeur école maternelle bu Cheikh Mouhamad Nazir Ibrahima Niass nekk ci institut El Hadj Abdoulaye Niass bu Kaolack. Euh, euh, ñu nekk mooy de vingt quatre heures si euh, gàmm gi tey lan nga ñu mën a wax ci organisation bi ci dëkk bi ak lépp daal di manière général waaw sant yàlla xëy na mun naa am am na lu bëri loo xam ne gis nañ ne jaar na ci yoon waaye balaa may commencé ma wax ne li may wax nii man kenn la engagé sama xalaatu bopp la li may tontu it sama gis-gisu bopp la mën naa juum mën naa wax dëgg euh, ci dëkk bi laa dëkk xam ni organisation di doxee euh, di dund ci dëkk bi xam li nga xam ne moo manqué woon ñu demandé ko ak yi nga xamante ne ni moom lañ def ak yi nga xam ne defaguñu ko moo tax lépp lu may wax rek man kenn la engagé en tant que koo xam ne observateur la walla koo xam ne kuy lancer alerte la. ci yenn yoo xamante ne ni xëy na mën naa am mu am lu mu gàllankoor ci liggéey wala yu demee noonu waaw ñu ngi ci moins de quatre heures ci mawlud bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci Medina Baye muy gàmmu international bu Medina Baye ñu baaxoo di ko def ci jamonoy Cheikh Ibrahim ba léegi nii ren nekk année 2021 de ñu nekk ci Covid daaw ak ren yëpp. waaye ren ñu gis ne ren moo ëpp mbooloo ka daaw parce que daaw dafa nekk ne Covid bi nit ñi dañoo ragaloon bu baax a baax a baax ba ñu bëri ñemewuñu woon ñëw surtout étranger yi ñi ñëwoon daaw mooy waa Sénégal yi waaye ren nag gis nañ ne étranger yi ñëwaat nañ moo xam waa Nigéria la wala waa Soudan wala waa Mauritanie ak yeneen sous raison bi ñu bëri ñoo xam ne teew nañ même américains yi am na ñoo xam ne ñëw nañ mooy ne peur bi amoon daaw wàññeeku na bu baax a baax a baax par rapport ak Covid bi. par rapport ak organisation yi tamit xam nañ ne jamono jii ñu nekk jamonoy nawet la te ku nekk xam na ne Medina bàyyi assainissement bi pareegul ba léegi parce que ñun toujours dañuy wax ne Medina Baye euh, ñun ñooy oote Medina bàyyi ci tur boo xam ne nii maqaama dëkk bi moo toll noonu waaye ñi nga xam ne mooy autorité administrative yi ba léegi Medina bàyyi quartier lañ ko considéré ci biir Sénégal quartier comme Sam quartier comme Gaawaan quartier comme Medina Mbaba quartier comme Jaleñ quartier comme quartier yëpp waaw estati quartier boobu ñu amee nag moo tax ba léegi nii Medina bàyyi ni mu war a mel ci wàllum assainissement munu ko mel ci wàllum environnement munu ko mel ci yu baree baree bare yoo xamante ni ay manquement la loolu moo tax bu fekkee ne defoon nañ CRD ñu ne woon dafa am jafe-jafe yoo xam ne njortu nañ mu am ci gàmm gi parce que gàmm gi dana ñu fekk ci nawet wala day nawet day arrêté rek gàmmu ñëw mooy ne laaj na ñu defaraat mbedd yi bu baax a baax a baax ba nga xam ne nii nit ñi duñ jaar ci yoon loolu nag am na góorgóorlu bu bari lu ci am parce que bëri na mbedd yu taawoon ci Kaolack ci Medina Baye ci jamonoy gàmm gi balaa mu yegg si fexe na ñu ràmbale ko ba nga xamante ne nii foofu amatul amatul benn benn benn ndox loolu nag xëy na euh, mun nañ ci sant yàlla am na it yeneen yoo xamante ne gis nañ ne gars yi góorgóorlu nañ ci lu mel ni ICG ñoom itam seen liggéey remarquable na bu baax ci ci kii parce que foo tourné di nga leen gis équipe yu bëri lañ déployé matériel bu bëri lañ déployé tamit pour góorgóorlu parce que tamit man li ma gëm mooy ne euh, samay kàddu duma ci leble duma ci fay bor UCG euh, xaw ma fa kenn waaye gis naa seen liggéey niñ koy doxalee. Sénélec itam wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ taal nañ dëkk bi mu leer nàññi waaye remarque bi ñu am tam mooy démb ak tey dafay am ay délestage loolu tam xaw ma paan la xaw ma lan la. waaye itam loolu gis nañ ne loolu lu am la euh, waa ñu yore wàllu ndox mi Sen'Eau ak ña ca ànd ak ñoom hydraulique ñoom itam bari na ay branchements sociaux yoo xam ne nit ñi demande woon nañ ko ak comité d'organisation bi lu ci bëri li lay population bi di wax mooy na ba léegi nii loolu yembagut maanaam branchements sociaux yeeg yenn détails yooyu ba léegi yembagut am na daal benn benn yoo xam ne ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel mais terewul fii ba suba gàmmu gi di jot luñ ci xam ñun tamit daneen alerter parce que ñun loolu lañ mën a def euh, comité d'organisation tamit ñoom am na ñu ñuy liggéeyat ñu ngi def seen i seen i euh, gëstu pour xam lan moo dox ak lan moo doxul mais li am solo daal mooy bëri na loo xam ne waxoon nañ ko sollicité woon nañ ko état comité d'organisation bi loolu ñoom mun nañ ci ñëw mais ñun liñ gisal suñu bopp mooy que ne Ageroute am na tali yoo xam ne waroon nañ ko defar mais defar biñ gis ñun taxut mu nekk defar boo xam ne defar bu bu jaar ci yoon la voilà. côté santé ban taxawaay la si lañ si am organisateurs yi euh, bu ñu xamee ne comme juñu nga ko sanq dañoo nekk ci période mbas. waaw Covid bi moom xam nga loolu bañ ko waxee ci CRD bi sax gars yi dañu waxoon ne. loolu moom daanaka ñoom seen xeex la parce que gis nañ ne Covid bi dafa dafa dafa dafa am doole te dañoo war a fexe gàmmu gi nekk loo xam ne dafay xeex bokk ci ñiy sensibiliser pour Covid bi arrêté. ba taxoon na ñu ne woon sax danañ fi indi poste de sa poste ay poste de santé avancé waaye tamit ay poste yoo xam ne dañuy def ay dépistage maanaam defal nit ñi ay test Covid pour ñu xam. feebar bi fan la toll ak ñiy ñëw ak yooyu nu ñu leen toppaloo ba pare teeru daneen doté comité d'organisation bi ay médicament yoo xam ne nii médecins yi fii ñëw kuñ consulter nga am doomi jàngoro ñu laa may garab nga mën a faju te doo ci fay benn dërëm terewul tamit wax dëgg yàlla jël nañ ay matukaay yu bëree bëri boo demee hôpital El Ibrahima Niass euh, hôpital euh, bii nii dispensaire bi ak yeneen dispensaires yi jege Médina yëpp am na ay équipe yu fa nekk yoo xam ne am na ñoo xam ne état moo leen yebal waaye am na ñoo xam ne taalibe bàyyi ñoom ñoo fa nekk muy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa Baye assistance médical ñooñ tamit yàgg nañ def lu mel noonu waaye léegi xëy na doole ji gën naa bari parce que taalibe Baye nekk médecin gën nañoo bari waaye terewul état tam xëy na mu ngi leen di jàppale ci seeni i matériel ak seen i encadrement pour liggéey boobu gën a jaar ci yoon côté santé moom xëy na c'est moins grave euh, tiituñu ci bu baax a baax waaye daal infrastructure yi nga xam ne moom dañ ko waroon a defaraat lu mel ni tali yi ñu waroon a defaraat ba baax am na tali yu ñu defaraat waaye defar bi taxul ñu wax ne mooy defar daal waaw